pense que euh, fépp foo xamee ne dafay dajale ay nit. ay nit bu dee fii ci D-Media la ñu mën a am lu ñu woowee ay détecteur d' incendie. ou détecteur de fumée Euh, ba nga xamee ne bu amee benn court circuit bu ndaw benn euh, euh, prise bu sotee saxaar su ndaw soo su muy génnee daanaka kër gi lépp bunt yi sax dafay ubbeeku donte carte nga koy ubbee wala badge nga koy ubbee bu dee structure mel ni des médias masse foo xamee ni ce de des de milliers de personnes yoo xamee ni ñoo fay dem régulièrement parce que bu ñu la waxee ne la cinq cent mille personnes la hôpital bu maam Abdou Aziz Sy Dabakh boobu polarisé ndax région bi mu nekk mu nekk ci Tivaouane mais surtout Euh, yenn ci ay villages ñu ci bëri ku feebar euh, wala nga am soxla fa ngay jawli jëm ça veut dire donc il faut un minimum euh, sur le plan des infrastructures mais même sur le plan sécuritaire parce que ku mel ni Amadou Kana yàgg na ci wàllu sécurité xam na ko ndax nekk na protection civile bu ñuy wax ci jamono ñu ne la paratonnerre dañ koy soxla ci jamono yi nawet bu ñu dugg ndax ay foudre yu mën a dal bëri ay nit bu ñu la waxee ne la tamit ni war nañu xool ci lu soxal mbirum infrastructure du ñuy dugalee lii di fiilu courant yi ñuy wax ci marché incendie yàggul dara mu am fi nga xam ne moom mooy ci Lamine Gueye bi muy euh, euh, ci parc euh, Lambaye la suma suma juumu tur bi yoo xamee ni tamit foofu am na fa lakk bu fa bu fa am ñu ñàkk fa lu bari mais tey lu ñu ñàkk ay doomu aadama la Mansour ñu bàyyi la nga tëj kàddu ko bon xanaa interpeller kilifa yi ñu assumer seen ay responsabilité caaxaan baaxul Biray démb juróomi nit ñoo dee ci accident ci yoonu Kaolack cinq personnes kenn waxu ci ñaari semaine moo ko jiitu maanaam démb moo nekk xëy na ñu ngi ci quatrième semaine bi euh, dix-neuf personnes ñoo dee ci accident cinq personnes ci géej gi ci biir semaine boobu noonu on a enlevé assassiné quatorze personnes euh, ñuy wax opération euh, rafle ak yu mel noonu à l'espace deux mois ci benn weer lu lu jige cent personnes yoo xam ni ay dee yoo xam benn naturel lu ci buy amul ci ma tey am ci càggante wala am ci indiscipline euh, il est grand temps état jël ay responsabilités ki ci am responsabilité nekk sénégalais ñu def ak yow sanction yi mu laaj génn ci politique comme man di doon nag état bi itam bu laajee sanction mu sanctionné boppam hmm. jaaduwul lu mel nii am am ñu nekk ci féeti ak ministère de la santé wala ministère de l'intérieur xëy na wala féeti ci wàllu politique ak président de la république di jël position politique nous on parle de technique ak ay conséquence yoo xam ne musiba la drame bu am ci réew boo xam ni ki mujjee wax sànq docteur Ousmane am technicien la xam-xam la euh, Mballo ji am technicien la bu am xam-xam la ñu jël ñooñu utiliser leen ñu def enquête indi ay leeraange yow tey astu soxna mi mujjee faatu yow xam nga lu nekk ci audit bi ministère de la santé def lu ji woon ci Louga xamoo ko est-ce que gis nga ci fenn fenn responsabilité ba ca tribunal ba gisoo ci responsabilité gynécologue ba lan moo tax et pourtant ba nga woon ci hôpital ba bi astu dem xeetu njuuj njaaj yu mel noonu nga xam ni dañuy wut kumba ndey kumba am ndey ak kumba amul ndey ki am bàjjen ci réew mi ki amul bàjjen ci réew mi fii ku fi sant Touré ak Badiane ak Sonko ak Sakho ñooyam a fi am bàjjen. Hmm. nañu àtte seen diggante digganteek yàlla càggante bu amee da ngay nangu. laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat dogal boo dem fekk fa tànk borom direction bi saytu loolu mu ngi fi muy maintenance infrastructure ak équipement infrastructure bi am na est ni mu amee baax na wala déet. Hmm. équipement am na est-ce que équipement sax am na. maintenance am na kii def maintenance bi est-ce que am na outil yu mu liggéeyee. te bu tey information bi Fatal bi joxe également. ça veut dire que y a aussi. parce que vingt euh, ci ay. lu ndaw la boole si. pile lay pile lay fonctionner. c'est ça euh, lu ñu woowee détecteur d'incendie wala de fumée. lu ndaw la nga taf ko fii mu ngi fii ci studio yi mënoo ko wone euh, waaye lu ndaw lay doon. lu ndaw lay nekk ay batteries ñoo koy. fonctionner parce que maintenance bi ci waroon def nañu ko. on verra boo demee ci immeuble yi nga xam bëgguñu ko fay tux noonu la fay demee booy taal sa serreur mu yuux déclenché. donc yooyu yëpp bu fekkente ni mun naa am ci ay ay structures yu ndaw sàkk ay hôpital yoo xam ni dafay polariser ñaata nit boo cinq plus de hmm. cinquante mille hmm. dina am ay sanctions. on l'espère. mais dina am itam ay responsabilités lim naa ko sànq fukki centre de santé la yu ñu def ay hôpital niveau hmm. xëy na saytu nañ ko ci wàllu njaaba njàll ak taf yëngal mais. dafa am lu mu laaj hôpitalu niveau un li koy tabax xam nañu ko seen technicien wax nañu leen ko daanaka matul trois milliards nañu fexee def ay hôpital li nekk fii di chômer ci ay docteur kenn xamul lu ñu toll xale yi génn qualifié ñu jël leen budget bi ñu amale ko ci wàllu santé te ñu respecté organisation mondial de la santé nee na chaque pays budget am vingt pour cent yi na dem ci wàllu santé wala lu ëpp vingt pour cent Sénégal xam nañu ni suñu budget li ci dem ci santé matul loolu jigéewu ko sax nag du xaaji xaajaat ba li ci ëpp ci budget bi salaire lay doon. donc nañuy nañuy nañuy respecté. Hmm. comme ni ñu koy waxee convention yi ñu signé waaye saa bu leen dogalu OMS arrangé ñu def ko bu leen arrangé wu duñ ko def ma ni faw ñu waxante dëgg ba noppi ay doomi nday doomi bàjjan na fi nekk sa gémmañ gi xeeñ na sa doomu bàjjan moo la koy wax. Hmm. gestion bi moo des ŋàbbin wi moo des te xam nañu ni yëfi fan la jógee parce que am nañu ay techniciens yuy def ay enquêtes ci hôpital yi di joxe ay rapport ci ministère bi nañuy déglu techniciens yooyu. Hmm. politique mooy nekk ministre waaye ñi muy àndal di liggéey ay technicien lañ bu ñu demee nag ba nga xam ni fii laay jeexale Birahim hmm. ministre bu bëggee def benn point de presse wala mu bëgg def benn visite day laaj entourage am ñu leen ban hôpital moo gën a normal pour ñu dem ñu defa point de presse ban moo tane non bu ñu ko defee bii de nañ leen dem bee moo tane parce que day génn télé nga xam ni kon y a problème hmm. Euh, un bon entendeur nag. un bon entendeur salut may fàttali laataa ñuy tëj ay kàddu yoo xam ne mu ngi tukkee ci Serigne Babacar Sy Mansour gannaaw euh, faatuk euh, yooyu les tout tànk xalif général des Tidiane nag di sàkku ci askan wi fu ñu mën a nekk ni ëllëg ci ajuma muy ci réewum Sénégal gépp ak bitim réew nañu jël bésu ëllëg. jagleel ko alxuraan euh, jàng ci wàcce ci ay kaamil ci réewum Sénégal ci képp ku ko mën ay istixfaar di astaghfirullah di ci delloos tamit ak ay ixlaas lu soxol euh, yooyu les tout tànk nga xam ni fukk lañu ak benn ci euh, li ñu mujj gis ci wàllug lim kon muy ay dénkaane yu tukkee ci Serigne Babacar Sy Mansour di xalif général des Tidianes di ko jaalee di jaale tamit mbooleem xalif généraux yi ndax Euh, muy euh, bés bu tiis ci ñoom ñëpp euh, muy ci Tiwaawan tey la mbir yi xewee waaye magam ji nekk fële ca Touba te di fi amel gane si fii ci Ndakaaru tamit tiis la ci moom mm-hmm. di xalif général kullu murit sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachir ak njaboot yi nekk ci Kaolack ñi nekk ci biir Tiwaawan googu nekk Njaasaan nekk Ndànk ak fépp fu ñu nekk euh, ci euh, réew mi euh, njabootub Dramé Dramé yeeg fépp ñoom ñëpp doon tiis si ñoom it kon yaakaar naa ni liñ naan dafa tombe sax ndax fekk na ni ëllëg xalif de des Mourides tey jii ci guddi lu ko dalee ëllëg kon ci ajuma amoon gan goo xamee ni da ko fas yéene incha allah fii ci ci ndakaaru te gan gi yëpp ci lenn la muy alxuraan ak sunna kon Euh, na ko ñëpp daal jël def ko seen yëfu bopp ndax mm. ñaanal suñu euh, suñu doom yooyu nga xamee ni yàlla moom na leen ci condition yi leen moom metti waaye ñaanal ko tamit ci mbooleem ñi nga xam ni ñoom ñoo fi euh, ñàkk ñoo ñàkk bakken wala ñuy ñàkk ay ci jamono yu ñu nekk ñu ngi koy wax juróomi nit ci accident nga précision précision bu tuuti manque de sérieux mm-hmm. moo tax biig ba léegi mm-hmm. mënuñu laa jox chiffre exact ci ñi fa faatu waaw chiffre exact bi ba léegi en tout cas onze la ñu wax enquête yaa ngi woy waaye ñu ngi koy fàttali kon sëñ Babacar Sy Mansour li mu euh, joxe ci euh, ndénkaane muy jàngal xuraan wàcc ay kaamil ni ko ëllëg jagleel ko euh, yooyu la tuut tànk waaye jagleel ko mboolem doomi aadama ci réewum Sénégal go xëy ne ñàkk nga bakkan ndax wax nañ ko léegi juróomi nit ñu faatu tamit ci accident ci diir bu gàtt ci tali bi Euh, suñu correspondant bu Kaolack doon ñu ko xamal ni que tey ci suba ak yeneen i accident yoo xam ne mu ngi fi am yàlla na fi gëj yàlla na fi yem euh, ci euh, barke ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu mag yu baax yooyu yàlla na fi yem yàlla na fi gëj di ñaan nag suñu borom li nga xam ne lañu ñu sumb Euh, ci wàllug euh, bésub kaamil googu sëñ Babacar si Mansour woote ko ni ki ëllëg. incha allah euh, te ñu fas yéene ko ànd ak mbooleem mboolem su ak mbooleem kilifa diine ci réewum Sénégal yàlla suñu borom musal ñu ci musiba ak balaa ci réew mi. Mm-hmm. ndax fi ñu mm-hmm. toll nii. balaa bari na fi. balaa ñett ñi ngi wax ñetti xale ñetti xale yu dee ci Kédougou dañu lapp. feeñ ñu lapp ba ci dem ci Kédougou ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamee ni. yàlla na fi am te nag ci ku nekk daal xar ci sax tànk tubay xam ni. Euh, du parce que diw moom moo faatule waaye mën nañoo dal ñun ñii yàlla yéex waaye yàlla na fi am ñu leen di jaajëfal kon euh, tey di fàttali nag nii pour nii ko xamul day national nag euh, lépp luy mbumbaay ak xumbaay dañu koy tere muy ci ñetti fan yi les drapeaux son en berne à partir de ce jour di lu tukkee ci njiitu réew mi ñuy njort nag te di sàkku ci moom Euh, Union africaine am na importance waaye doom yi ñu ñàkk nii ñoo ëpp importance Union africaine ëpp importance lépp ndax euh, benn bakken bu faatu euh, doon na lu rëy ni ko sëñ Muntaxa doon waxee jamono yi yàggul dara ba muy daral ay politiciens ne leen nag fitna mën naa ñàkk ci réew mi lii ñu toll nag moom mooy priorité na ñëpp jël ko def ko seen priorité du ay leçon yu ñuy joxe waaye dañoo am wàll tamit ci réew mi am kàddu goo xam ne am nañ sañ-sañu yëkkati ko jëmale ko ci askan wi nañu delloo si xel yi bu jaree ndëpp national ni ko sëñ Mor Mbaye doon waxee nañu ko def waaye nañu delloo si xel yi uh-huh. waaye nañu euh, bëggante soppante ndax euh, àdduna yàggul dara te lii firnde la ci loo xalaatul woon yeewu mu dal la nga xam ne firnde baa ngi noonu nag yàlla mooy suñu borom mooy wane waaye loxoy nit tamit li ñu woowee ku ci nekk sa responsabilité na nga ko jël na ku war a taxaw ne ni damay tekk sama ndombal tànk nanga ko def bul ci xaar mbirum politique ndax euh, du jamonoy politique jamonoy tiis la ñu leen di jaajëfal ci ànd bi ak euh, groupe des média euh, di leen jox di daje ci yeneen yi xew-xew ndax ci diine la ñu nekk tey jii tamit suñu mbokk chrétien yi nekk ci sanction ñu leen di ñaanal tamit ñoom ci wàllu woowu ñu nekk te di leen jox di daje kon ci Euh, bés bi ak lépp luy programme ci D-Media bokk na ci nganup euh, Serigne Mountakha Mbacké Bachir fii ci Ndakaaru ngeen fas yéene ci ànd ak ñun euh, daanaka 24 heures sur 24 ba fileek dimanche incha allah jaa ngeen jëf.